asu billahi min seytaani rajim nee bismillahi rahmaani rahim nee na asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu sëriñ bi nee na ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi fi di nuyu it mbokki taalibe yi fi teew yépp di leen ziar te di leen balu ak réew mi coow li bari na lool fan yi nee na mu ngi rafet rafetlu waxtaan wi nga xam ne moom la président de la république woote ngir jàmmi réew mi ndax jàmm fii ci àdduna juboo koy maye kon nag di waxtaan ci suñu biir dina indi juboo bu dee njëriñu réew mi rekk la ñu moytu nag waxtaan yi mel ni assise nationale yi ndax saay rekk ci lay mujj loolu nag amul benn solo di ñaanit waa réew mi ñu teey ci mbirum pétrole bi ak gaz bi réew mu mu am mu am pétrole réew moo xam ne dafa am pétrole ak gaz nee na réew moo ma dafa yomba takk ndax pétrole ak gaz ku ko mu tak kon nak ku ko da nga tak kon ku bëgg a jaar ci yooyu ñaar muy gaz ak pétrole ba tekki jaadu na yit nag nga xam fi ngay teg sa tank lu war la na bi def kem ci di leeral nit ñi te yit di ci deesoo diisoo ak nit ñi ndax loolu yi dana dalal xelu askan wi ñu ngi ñaan président de la république mu fast track bi ci fast track bi mu doole jàppale it nag waa àll bi ndax mbay ak sàmm moo fa bàyyi nit ñi ku sa mbay mënta jëriñ dara ndax sa néew jumtuwaay sàmm sàmm ngay mottali ko ku bëgg a xaru nag ci ji jamono jarul yeew sa bopp jarul yeew sa bopp jarul naan poson yeewali xar rek ku bëgg a xar jarul naan poson jarul yeew sa bopp yeewali xar rek nee na guddi la fas waay di jaar yóbbu say xar boo xaroo ci yeew leen boo xaroo ci yeew leen ñu yóbbu sa bakkan yóbbaale say xar bëri na nag ñu ñàkk seen baay yooyu nee na bëri na ñu ñàkk seen baay aar seeni béy moo leen ko yóbbe war naa xam moom président ne ñu ñuy joxeloo jiw wi ñu bëri ci ñoom nag joxewuñ jiw gerte la ñuy joxe gerte nag nee na daxin rek la gën a man nee na